bismillah fii niin ak daala yàllaaw sawi baqa abi bi fiiq yàllaaw ausu billahi min alseytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim maa ngi leen nuyu di leen ziyaare di leen ñaanal di jiital ziyaare bi sëriñ Muntaxa sunu borom gën ko fee yàggal te ko ak wér ba li mu yéene lépp suñu borom matale ko te ñu fekk ko ñun donga yi parce que ne indi ab leeral ci guddi gi sëriñ fajar gi sëriñ Tuubaa di ñibbisi fajar gi sëriñ tubaa di jóge ci tukki bi bay ñibbisi soxna Faati Ja nee na sëriñ Tuubaa nee na ko bi ma nekkee ci tukki bi ba war a ñibbisi damaa xëy julli fajar suba ba noppi yónnante bi ne ma Ahmadou Bamba ma ne ko Mbakke mu ne ma liggéey bi mën na nee na ba bët setee ma génn lu mboolem gaal yi ca néeg ba lu néeg ba taal fa cuuraay def fa laj koloj nee na booba ka jiite soldaar sax ma nga may gis di ma ree ree ju méttee méttee métti ngir li ma nuru koy tuxu te gisul menn mandar mu may tuxal si kanam tuuti ndaw fekk ko foofee ak xel daw yu metti jox ko aw këyit ne nee nañu ngeen puus ba mu puus gi waaw xëy na la bëgg a wax wala la fa am buuba yóbbu yëre yi sëriñ bi ci gaar ba ne bu fekkee saxaar gi jiit na ba sëriñ bi ku ci amoon genn ndomb ak tànk garaat des na ko tekki mu waaru lool daal di daal di daw nga ñu teg céere mu jàpp foofee ba ñu àggee ca gaar ba mu julli ñaar rakk door a dugg nettali bi nag soxna Fatou Dia moo ko doon laaj sëriñ sëriñ bi dégg ko nettali ci biir nettali bi nag danañu gën a xam li sunu borom di wax ne lépp rek lépp dama ko wutal ab app inna kulla naa xalaqnaahu bi xadarin su ko defee ba app boobee ñëwee faw loole am sunu borom li muy sottal te sunu borom li muy sottal ci mbindaa daa ni la koy jaaralee ndax moo wamaata saa u ilaa insha allahu loolu sëriñ bi doon def ci néeg bi dañu doon jàngal worma ak i teggin ndax wóor na ko ne foofee ñu fa nekk duñuy jullit waaye dañu doon wormaal ngir ab liggéeyam soxna Fatou Dia nee na it sëriñ Touba jugee ci tukki bi ba ñëw Daaru Salaam woo na ma bis nee na ginnaaw gee bi ma nuyoo moom ba noppi mu ne ma tukki bi li ma ci indaale mooy xéewali suñu borom yépp kon yéen ñi wax ni mën ngeen àndal yéen ñi wax na mën ngeen àndal xéewal bu ci ab jullit war a danaa leen ko jox lu ngeen làmb mu dër wàcc leen te xam ne ab jullit du ko warta am lu ci jullit warta am maa dox seen diggante moom ndax waxtaan bi Serigne Touba soxna si la doon waxal ci zahir si waaye baatin bi murid yëpp a ko taxoon di wax ndax daa wax ne yéen ñi wax ne mën ngeen àndal kon kay Serigne Touba murid yëpp a ko taxoon di wax te borom Touba daa bëggal murid yëpp saxaadatu daara yi moo tax lépp lu leen di xañ du leen ko jox ba tey Serigne bi leeral nañu ci biir waxtaan yi li nga xam ne ak tànnam loolu moo di lépp lu ñuy wut bu jàppandee lool te amul benn nëx-nëx ñu xam ne lii lu mu tànn la ci ñun bu fekkee jàppandiwu nag ñu xam ne nekku lu mu tàmm ci ñun walla waxtu wa ak seegul waxtar liyal axsana fii kulli la yaat wajjal ayaati bii xayra ayaat wakkatub liyal yowma ala waatam tadum fii kulli min ixtarta yaa baaxil qadim murit yi nag dañoo wute lool ku ci ne ak li gën ci moom waaye nag li tax jàng xasaayit lu bari am solo ci am murit da koy xamal ak tànnam di ko neexal ci moom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 mu ne ko mooy xamal la kookee la woo ak jànganteem ak dooleem ndax damaa dégg ñu ne dadaawoo taw yu jiwoo sëriñ ne ko jaraaf sama diggante ñooñee dama yaakaar ni am na leneen loo mën a lijjanti lu dul loolu su ma digganteeg ñooñu ngay lijjanti wala dëpp gémmiñ la dana mokk dana tiis du taqal kenn te da am tuuru jaraaf comme mii la yàlla booleel bëgg yéen sonal ñëpp yàlla teq na leen tey jii comme ab sarax bëgg koo saraxee na ko denc diir bu gàtt nga soxla ko jaraaf xaqataay Serigne Touba xamal gi ko sunu borom xamal li ci mbir yi tax na mu mën a muñ loo xam ne moom képp moo ko mën a muñ sunu borom it may na ko jikko yu rafet loo xam ne kenn amu ko ku dul yónnante bi. ba tey danañu xam ne kaddu kaddu lu rëy la mën naa tere nit ci lu gaaw waaye noonu la mën a toroxalee nit ci lu gaaw yàlla nañ yàlla dimbale ba li ñuy wax lépp di liggéeyal Serigne Touba faaw. ba tey loolu ngeen gis mu ko daan développé suñu daaw Abdourahmane da ngeen xam ne sëriñ bi mbir mu ne am na ñu mun ci daa loolu nag baax na lool ci kilifa gu ñuy topp ndax dana waral benn juyoo wala jiw du am ci say nit bu ñëpp maasee xam ne sëriñ jiw mooy def nangam kenn du xëccoog moom loolu naka noonu Seydina Jibril alayhi salaamu moo yor wax yi Seydina Mikaayil alayhi salaamu moo ndox mi Seydina Israafil alayhi salaam mooy wal buftu bi Seydina Asraayil alayhi salaamu mooy rocc ruuy mooy wéy am na bu doon dàq aw rab bañ agsee ci Serigne Touba fekk booba Serigne bi mi ngi bind Matlabul Fawzayni mu teqali seen diggante ci xool gi mu xool gaynde ga waxay suma taxaf ilaahaka al ahad yaxifka min xawfika kull ahad bu ñu fàtte ne ci biir la Matlabul Fawzayni la doon waxee ne haza innil yawma yaa wahaabu xayraka fi daarayni laa ahaabu mel na ne ko nettali bi day dëggal li mu wax ne ragalul kenn ku dul yàlla ndax gaynde moo gën a raglu ci rab yi ñu xam ci àll bii bu fekkee ñëw na ba ci moom te tax koo raf la mu doon bind dara dem ca loolu li xam ne mooy loolu mu doon bind lu am la loo xam ne jërëtu la firnde moo tax sëriñ Mandumbe ñëw na ci sëriñ Tuubaa ne ko man ne Mbàkke dama bëgg xusum mbay sëriñ ne ko Mandumbe ñun bayi bay am xusum mbay waaye loo teral teral la xusum mbay mooy luy dolli mbay mi li ko sëriñ bi wax it li ma ci xam bu fekkee dañuy góorgóorlu ci mbay mi na mu waree suñu borom teral ko ndax fi mu ne na ngeen gis ko yor meññ mu naw waaye teewul ci lay tedde te tedd rek la ñuy Sëriñ Tuubaa bi mu nekkee ci war bi dem na loo ab dëkk la jaawale ci armeel yi am ku fa mu gis armeel yi xumb lool mu daw ci dëkk ba mel na ko joome ñu ne ko lan la mu ne ñëw leen li ma gis ci armeel yi ñu daaw si ñëw fekk Sëriñ Tuubaa taxaw yëkkati loxoy jàpp ci garab kooku gënoon a jege nee na mu ngay dégg mu naan na ngeen xam ne ñëw naa fi moos Sëriñ Tuubaa bi mu nekk njëriñam am na ñu mu yónni woon ay seng ba ñu ko jëndee ba noppi tubaab bi bég ba may leen bideelu laaj ko leen bañ ko waxee sëriñ mu ne na lépp dellu man Ahmadou Mbacke du ma bég la am nasaraan mën di leen ab tënk ci dundub sëriñ Muudu Maamun Mbàkke ibnu Maam Cheikh Anta ak soxna Buri Mbàkke di doomi Ibra Kanni doomi Ibra Xawa Jang moom maaram mi ngi dajeeg baayam ci Ibrahima Xawa Jang mi ngi gane àdduna fa Touba fu ñuy wax këru Touba waaye juróom Maam Cheikh Anta da koo waxoon ne ab liggéeyam féetale naa ko lu jëm ci liggéey sëriñ bi dañoo waxoon ne bi sëriñ bi jugee Daaru Salaam ba ñëw Touba foofu la gane àdduna am ñu ne 1887 am ñu ne dëppoo 1307 hijriya ba mu ganee adduna rek la waajuram génn adduna ba mu génnee adduna dañ koo fab def ko ci ak leget muur ko xawi paxtan andil ko sëriñ sëriñ jël ko daal di koy bindal toqantal am na sax ñu ne da koo boole soxna Amin Talo am na ñu ne da ko boole soxna Awa Bousso ba yàgg mu ne nañ ko wutal meew rat maam leen jënd ca xaram rat ba mu dellu ko sëriñ bi ne ko gétt googu commence am meewam say ram aram wala maam Cheikh Anta daal di dem jënd gétt gépp ñu andil ko sëriñ bi sëriñ bi ne nañu ko yóbbu ci soxna Faati Balla ba ñu demee dañoo fekk soxna su ween wa di sotti meew am jàngal wax nañu ne jaar na ci sëriñ Daaw Abdourahman loolu waaye gannaaw bi nee nañ sëriñ Afia moo ko jàngal ba mu mokkal jàngum xam-xam nee nañu lu moo ko ko jàngalal boppam bi sëriñ nekkee gànnaar am nañu ko sëriñ bi booleel ca naar ya ñoom it nañ ko digganteem ak sëriñ bi moo tax bi sëriñ jógee ci géej gi ba maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam ganale ko gan gu rëy a rëy <laughs> ci la ko laaj ñu ko ana Muhammadul Maamun ba mu ñëwee ma laaj ko alliwa ji mu ne fu mu toll mu ne ko mokkal naa mu ne ko taril ma dikk nee nañu ba muy ba may tari sama baat bi di lox sëriñ bi yeey kuriyaat bi jox ma masix nee na booba laa gëj a taxaw ci alxuraan bokk nañu tax woon ak sëriñ ba muy nekk gànnaar itam nee na ñu bari sëriñ moom la ci doy la woon moom la koy teg ci loxam wax nañu ne ca jolof sëriñ dafa woote ba ñëpp dellu mu ne leen mën ngeen a dellu ci seeni wayjur bu ñëpp demee ba ci suba gi sëriñ gis ko ne ko maamu lu tax di moom mu ne ko mbàkke da nga ne na ñëpp dellu ca seeni wayjur tawan yawey sama wayjur sëriñ ni ko maamun loolu de sikkiwul moo tax sëriñ daana faral di wax ni al waladu walidaani waladul qalbi yarisul xaal waladu sulbi yarisul maal la ci ëpp nag bu nee waladul qalbi rek daanañ jublu sëriñ Mouhamadou Mamoun nee nañ bis ci njëriñ sëriñ mas na koo toogloo fi bërëb mel ne ku ko fa fàtte taxul mu jug fa mu toogoon taxul mu laal ndab la ndab la fa ubbi woon moo tax sëriñ mu Gueye di wax ne say jikko noppal na borom jumaa ji noppee goree la teree wëreeluy laaji lenn ci ay sanca moo yeesal Daaru Salaam 1917 moo njëkk a woote màggalu daaru salaam ci teewaayu maam Cheikh Anta daal di wax ne bëggu sëriñ bi moo di alquran moo waral kaamil ya ñu fay jàng sancoon na buf di ca nijaayam sëriñ Modou Xëri sancoon na itam Meenaj sancoon na itam Nelbe sëriñ Basiiru Mbàkke moo ko tuddee waa Tawfiix sancoon na itam Saam Yabal sancoon na Barwaawaan sancoon na Dumbucu lenn ci ay jikkoom ku tabe woon la ndax mu njëkk jox sëriñ Fallu Mbàkke addiya million boole ci almet moo tax sëriñ Musaa Ka di wax ne ku deeti def ay million hidaaya diit xalifatu ba ànd ak gaaya loolu noonu ko amul sutura ko woyof la woon tamanoon alquran moo tax Serigne Fallou daana wax ne kurub Serigne Mouhamadul ñu rab ko fajaru daan taggee rasulullah am na bis ca njëriñ Serigne bi dégg kuy jàng sallallahu laysin safa bi yawmi badrin iswafa ma sian bil wanafa bi hadiyil muhassami sëriñ bi ne bërit ne loolu ku ko wax nañ ko woo mu ñëw bi mu ñëw sëriñ ne ko loolu ku ko wax mu ne ko ci sa xasaayit gu ñuy wax Jazbul Qulub laa ko gisee sëriñ bi ne ko damaa yaakaaroon ne daa am ko wax yónnante bi lu raw li ma ko wax ma bëgg a lax saayi waat seet leen di lu mel nii sëriñ bi nettaliwaat na ko ci ay bayit nixmal nabi wa rasul nixmal lasi a bisul lanaa bi rabbihil jamil min sikrihil wali xami nax sëriñ moom saa su ma saan daana faral saa su ma saan a dégg ci daana faral yu soppi ko lool lépp ci ay waxam itam li ko daan waral mooy mu dégg ku jàng dara ci bindam bu ko defee ñu daanale fii kàddu gi rek ba ëllëg ak jàmm bu ko defee dina ñëw gën a bu baax baax ci li ngeen xam ne mooy sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ak daala yàllaaw sawi baqa abin bi fiika yàllaaw bismillah fii niin ak daara yàllaaw sawi baqa abin bi fii ka yàllaaw